donc euh, encore une fois euh, dañ lay encourager comme ni nga ko waxee Sénégal waxee fi yombut alors ñu dugg ci waxtaan bi bu ñu waxee presse kii di Ousmane Sonko dafa def discours foofu ca Grand Théâtre daal di xamle ni mayatuñu presse bi di wax ba pare daal di ne source ba maa ngi ko jëlee ci internet bi alors que euh, presse bi tey sénégalais yi jàpp nañ ni fi Ousmane Sonko toll ñoom ñoo ko fa yóbbu est-ce que lii war na leen diggante ñoom ak ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko yow noo jàngatee discours Ousmane Sonko foofu ca Grand Théâtre mais euh, discours ñàkk respect ci ñun bi nga xam ne nag moom la mës a am j'ai l'habitude de rappeler que ne mosul am respect ci presse bi mosu mhm. euh, leen jox benn cër ak gëdd moom bi mu fi ñëwee lañu xewal jël population bi ñuy dem di songi ay presse bi mu fi ñëwee la population bi xewal di saaga ay journalistes di saaga ay kër taskatu xabaar di saaga ay patron de presse te ay ñoñam ñoo ko doon def ay la yooyu nag jéem nañ koo weddi yi jéem koo rafetal waaye ñun ñëpp xam nañ dëgg gi fu mu nekk xam nañ ñan ñoo fi indi congum euh, li nga xamante ne nii euh, population bi en tout cas bu njëkk ba daan nga gis ay militants euh, wala ñu ne la kalon bu la yi wala les militants d'un parti wala nangam mais askan wi en tant que tel jóg di am na ñuy defanteeg presse bi ci moom la xewee te loolu nag wax dëgg yàlla ñàkk wormaam ak ñàkk respect ci ay kër taskatu xabaar moo indi lool lii nga xamante ne nii wax na ko keroog ne waratuñoo jóg di jële ay xibaar <laughs> ci internet bi mhm. comme moom c'est c'est monsieur contradiction moom ba mu fi waxee Mame Mbaye Niang tuumaal ko mhm. ci li nga xamante ne nii moom mooy euh, l'affaire Prodac bañ laajee foo ko jëlee ci internet bi cest à moom am na droit dem sourcé wu ci internet bi mais benn journaliste amul droit dem sourcé wu ci internet mooy monsieur contradiction encore une fois mu indeeti ab contradiction bu kenn mënta comprendre mais foofu Ahmed gisoo ni li ko dal la la bañ mu dal journaliste yi moo tax mu interdit leen loolu parce que moom loolu jural na ko tey ñàkk nekk candidat te ñàkk toog ci fauteuil boobu nga xamante ne kii di xaritam moo fa nekk yaa ngi wax mel ni comme si moom daf ñoo daf ñoo daf ñoo kii daal daf ñoo yéene jàmm daal moom daf ñoo bëggal lu baax yow nit bu la respecté wul nit boo xamante ne nii saa yu wax ci yow lu jéggi dayoo la mu doon wax ay lobs ay conférence de presse am la mu doon wax ay live am di traité euh, nit ñi de vendu yi yooyu yëpp fii la fii la ñu fekk étant opposant donc ñun waruñu bett bu amee bu amee doole bu amee pouvoir taxawaay bi lay am ak ñun mais nag lenn neex na ma ci. mooy lan mooy que Ousmane Sonko lu mu def média yi man bég naa. lu mu leen mënti def rek man kontaan naa ci xam nga lu tax ñun ñoo jël suñu ñàkk fayda. jël métier bi ñu ci bari ci ñun jaay ko ko ak suñu ak suñu carrière da ngay toog fii nii naa wax dara analyser ko ci passif Ameth Ndoye dem Seneweb di la tontu en tant que homme de média mhm. mel ni militant militant passif sol militant passif di la tontu di la ci xas di la ci dépassé foo xam ne ñun dañ ñu yàgg xamee solidarité dañ ñu yàgg xam jàppalante mais ci dëgg mais kan moo am droit. toog ci sa plateau di tontu un autre confrère boo xamante ne dafa def analyse sur un parti politique Lorsque kañ militant moo koy def wala chargé de com yow defaatal sa analyse waxal sa Vous bu que contradiction le nu bokkul noo gisee ak moom ni mu mais waxal rek sa gis-gis mais dañ lay attaquer en tant que confrère ou consoeur parce que nous sommes nañ ne ñoom ñoo war a les premiers défenseurs intérêt bi xaw ma lan la xaw ma ragal la xaw ma dafa am lu ñu dafa am jox. dugub ba mu jógee naan ñu ñu jox ñuy cëpp cëppi di wax ma ne loolu moom moo ko baaxoo moom moo ko xam moom moo am ay nit yoo xamante ni dañuy toogal ci plateau di ko défendre ñun kenn yónniwuñu kenn du ñu wax loo suñu gëm-gëm la ñuy wax maintenant nag comme dem nañ nag ñun ba am ñàkk fayda mu yàpp ñu à ce point lum ñu teg rek nañ jël hmm. fi mu toll nii da ngaa <laughs> waxal say wax rek te ba ma da ci li ma waxal mais yéen la yéen a ñàkk fayda kañ mu ñaa mu jàppee leen noonu bukki bu yabee waxambaane comme ni ma ko waxee ci post bi bukki bu yabee waxambaane ca doxin wala uude nu mu la gisee la lay ëwalee lii mooy àdduna donc nag comme ñun ñoo ñàkk fayda ba may ko mu àgg ak ñun fii ak militant am parce que militant am ñooy conditionné ñu ci bëri ci ñun ah amna yo yoo xam ne mënuma ko wax fi sànq amna na am na ñoo doon tudd euh, militants yi ñoo leen di conditionné ñoo leen di napp ñoo leen di menacé ñoo leen di message après ñu ab benen benen doxalin ci média bi di xalamal nek géwalu euh, Ousmane Sonko ak ak gouvernement bi luñ def baxna man damay tok di seetaan yenn plateau yo xam pendant des semaines acte bu ñuy tek baxna do dégg mukk ñu ne la acte bi amna lu bon te gouvernement ñëpp xam nañ ne n'importe quel gouvernement le meilleur gouvernement au monde c'est des manquements à ne pas finir. gouvernement moo tax défendre leen metti Zeyna gis nga boo jógee pour défendre gouvernement am ni dañoo yaakaar ne. Mm. ñun ñuy ñëw di wax ay manquement gouvernement bi ñooy sonn xamuñu ne ñoom ñu bëgg défendre gouvernement ñoo ñu gën a sonn xam nga ne tey jii gouvernement bii di gouvernement son excellence Bassirou Diomaye fay su defoon ndakaar mu mel ni New York xam nga ne bu ñu xëyee dañ naan ko léegi ñun bëggatuñu mu mel ni New York mu dàq New York lañ bëgg lu ci mën. il y a bon. le gouvernement. La personne n'est pas. Euh, pas nous sommes des, des éternels insatisfaits. Effectivement. il moo le monde noonu ak ak dundé yakar ñun nous lañu suñu borom subhanahu wa taala tëggee. Mhm. maintenant boko défé defee né New York nous avons le droit de te dire que c'est bon mais nous demandons mieux maintenant ñun dañu bëgg a New York nga wàññi dund gi ba muy jar 15 ñu ne la non ñun dañu bëgg gratuité lo ci dara nga ci mënul parce que nit moo mel noonu nit moo baaxoonu léegi yow mi jóg nga yow da ngay défendre kooku noonu yow yaay ëpp coono ka ki jóg di wax ay manquement nga def discours trois heures de temps mu am cinq secondes boo xamante ne nii jaaduwul ça waay gars yi moom la ñuy jël comme on, on a l' habitude de le dire les trains qui arrivent à l' heure ne nous intéresse pas lu tax bi ñëwul ñëwul boobu la ñuy jóg di ko lijjanti ji bi war a ñëw dafa ñëw mm-hmm. ñëw na c' est normal luñ ci lijjantee ji mais bi ñëwul la ñuy dem lijjanti ji maintenant nag loolu soo jógee ne da nga koy xeex wala dang koy défendre wala da nga né sa gouvernement loolu du fi am yow yaay ëpp coono sax ñun ñi wax et la meilleure manière de fermer nos gueules comme j'ai l'habitude de le dire vous m'excusez du terme mm-hmm. c'est de faire de très bonnes réalisations loolu rek moo ñu mën a noppiloo mooy fu ñu yuuxoo ne mënoo nangam nga fexé ba def loolu mais du jënd di ñu tontu ak di dàggasante ak ñun parce que day yokk parce que soo dañuy jënal wax surtout sama genre gi nga xamné ne bu ñu sentiree ne ci wax ji amna na benn touche bu gëna ndaw ci menace damay gëna wax pour xol loma ma donc a pour pour fermer ma bouche. Mhm. li ci gën simple moi. faire les choses ni nga ko war a def lo xamante ne ni ay la yewen man dootuma am luma wax suma ma sur un plateau de télé. d'accord.